monsieur Cissé Momath Cissé ñu ngi lay nuyu di la dalal si réew mi. maa ngi lay fay. ngay vice-président ASCOSEN ASCOSEN muy association consommateur wu euh, Sénégal euh, et consommateur yu Sénégal tey ñu wax ci njëg yi nga gis ne yokku na euh, fépp foo laal daanaka mbir mi benn la ci marché bi noo ko jàngatee. waaw ni ma ko jàngatee mooy am naa ci njàqate hmm. am naa ci naqaritam la mesure où njàqate bi mooy Euh, jamono jii ñu nekk mhm. nga xam ne feebar baa ngi fi inondation yaa ngi mhm. presque entreprise yu bëri tëj mhm. saa yoo xëyee boo joxee sa jabar boo ñëwaatee ci suba ga mën a la yokkal parce que marché bi dafa yokk prix yëpp yëpp yëpp yëpp ñoo yokk te boobu ba léegi état bi waxul dara loolu daal laa xam ne na lu doy la parce que boo xoolee da am na suukar soo xam ne moom la kenn gisatu ko. Mm-hmm. boo xoolee ceeb bi diwlin bi yàgg naa yokk kenn waxu ci dara. Mm-hmm. ceeb ak lépp ba nga xam ne fi mu nekk nii sax lu waruloon a yokk fi mu nekk nii am na ci commerçant yoo xam ne profité nañ yokk nañ ko. Mm-hmm. waaw donc loolu lu lu ñu constaté la lu ñu naqarlu la parce que gisuñu koo xam ne ñëw na wax ci leeral ñu euh, essayer sax ñu waxtaane solution yi nga xam ne peut-être buñ ko mettre en œuvre dana tane ci poosu justement ngeen di kuréel gi nga xam ne day yëngu ci mbir moomule maanaam taxawu taxawu ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, consommateurs yi ndax jéem ngeen euh, saisir wala sax euh, waaw ministère laaj ko lu waral njëg yi yokk. jëm nañu saisir jéem nañu déglu am nañ ci waxtaan yoo xam ne sax. waxtaan nañ ko. Mhm. mais li ñuy servir dans un premier temps mooy que fret bi mooy yokk moo tax yu fi yokk. Mhm. maanaam tax mu yokk facteur la boo xam ne nekkul Sénégal la jóge ko mais bitim réew la jóge ko. Mhm. mais loolu bu fekkee ne dafa am da ngay toog waxtaanee ko ak acteurs yi. am nañ benn cadre boo xam ne ñu ngi conseil national la consommation. acteurs yëpp fay toll bu ko defee yokk bi nga xam ne bu fekkee ne bitim réew un pour cent la ñun bañuñu ku ñu teg un pour cent mais bu fekkee ne un pour cent la yow nga teg ñu cinq pour cent loolu du sotti loolu ragal nañ ne am na ci yokk yoo xam ne da ngay xëy tey muy muy muy muy muy par exemple boo jëlee diwlin ni mu yokko démb ak tey mm-hmm. mais loolu da ngay xam ne am na lu ci xew loo xam ne normal Mm-hmm. parce que am na sax stock boo xam ne leer na ma ne bi muy dugg ci Sénégal subirul variation bi nga xam ne moo nekkoon bitim réew mm-hmm. donc commerçant bi buñ ko bàyyee rek ak jëndkat bi jëndkat bi day loru parce que am na si ñoo xam ne ñoom duñu ay patriote mm-hmm. mais dañuy profiter ci situation li ñuy wax situation de spéculation donc moo tax ñu ne ministre bi nga xam ne moo war a taxa taxawee euh, euh, toogaay njaaxaanaay na te rapidement conseil national de la consommation boo tegee tey structure du prix d'un produit par exemple le riz mm-hmm. xam nañ lañ koy jëndee foofu xam nañ charge yi xam nañ li nga xam ne moom lañ may marché bénéficiaire mm-hmm. à tous les stades nag ñu xam ne kii lii lañ la may kii lii lañ la may boo demee marché xam li nga war a jëndee loolu valable na pour prix yëpp te am na noo xam ne nag mm-hmm. comme état maye woon na mille joxe woon mille milliards ci pandémie bu njëkk bi mhm. mais mun na dégg nga maam ñu donc nañ wàññi euh, TVA bi ci produit bi bu ko defee même pour trois mois que ñu mun a xëy na bu boobaa euh, pandémie bi jàll ñu ñu delluwaat suñu sago. tey am na ñu ne euh, tekkaaralam gi du dara lu dul euh, état maanaam ñoom ñoo nekk ci ginnaaw li ndax la ñu jot a dépensé ci mbas mi ñoom moom la ñuy récupérer ndax loolu ànd nga ci explication yooyu. xam nga partiellement. Hmm. parce que tey jii li nga xam ne moom nga yokk. Hmm. ci produit. Hmm. day tax man la ma doon jëndee ma yokk ko ci sama poste te suma salaire bu yokkul du ma mën a euh, jënd la ma daan jënd maanaam bu may lekk fukk prix yu yokku bu boobaa fukk boobu dama koy wàññi forcément mm-hmm. donc demande bi dafay wàññeeku te bu wàññeekoo day wàññeeku dem ca kaw importateur bi la mu daan euh, indi mm-hmm. di ko écouler du ko man ci mois bi donc partiellement dañuy wax ne trop d'impôt tue l'impôt mm-hmm. soit dootuñu fay impôt bu ko defee yow nga man nga ñàkk am na daal loo xam ne boo ko boo ko defee boo foogee ne di nga récupérer cent doo récupérer cent pour mënul nag mhm. monsieur Cissé ñu wax euh, ci euh, leneen tey gis nañu ne euh, maanaam lii di location bi déjà dafa cher ci mim réew ñu doon wax ne loi gi fi nekk ndax li ko taxoon a jóg tey jotul ñu xoolaat ko ndax gis nañ ni amul njëriñ waaw euh, amoon na njëriñ sax dans un premier temps c'est que dañ ko dévoyé ba nga xam ne toogoon nañ def évaluation avec le ministère du commerce joxe ay recommandation mm-hmm. recommandations yi mu ngi ci tableau euh, euh, mm-hmm. mais li ci nekk mooy li ñu gis mooy ñoom politique structurelle lañ bëgg pour apporter à cette solution mm-hmm. maanaam mooy jéem a tali yeeg yoon yi ak moyen de locomotion yi ba nga xam ne nit ki fu mu nekk di fa nelawee bu ko neexee mën na ñëw ndakaaru liggéeyam te du sonn mhm. parce que boo demee dans des pays organisés di nga cent kilomètres doo ko yëg dem sa liggéey mhm. ak fi nga yeewoo mhm. donc boo xoolee ñu ne programme yi cent mille logements yi bokk na ci solution yi boo gisee terre bi bokk na ci solution bi nga xam ne bu yeggee à long terme Dakar dana décongestionné bu boobaa euh, l'offre offre bi day baax ba nga xam ne demande bi euh, dina dina ko mën a jël mm-hmm. bu boobaa forcément location bi dina wàcc wax si suukar si jamono ji euh, gis nañ ne am ko jafe na ci yenn boutique yi dégg nañ ci sax waa UNACOIS ñu ci joxoñ baaraam tuuma état ne luy njig njaak ñoom la tey nga foog ne tamit lan moo waral suukar ñàkk ci mim réew waaw lu simple mooy production compagnie sucrière day commencé novembre mais bu ñu demee ba ci waxtu yi stock bi dafay xaw a wàññeeku bu boobaa nag à chaque fois dañuy woote ñu joxe ay quota jox ko compagnie bi jox ko importateur yi bu ko defee ñu anti ren nag dañu yéex a réagir parce que marché international bi lañ ne favorable favorable mais amoon na moment boo xam ne bi mu favorable buñ ko joxoon tey lii am Mm-hmm. donc manque de de proréaction la ci situation boo xam ne da nga waroon am vision mm-hmm. perspective gis ne da nga maam euh, marché bi xaw na neex mm-hmm. buñ demee ca kanam dootul neexati donc nga joxe quota yi importateur am na nag ñoo xam ne ay patriote lañ ci importateur yi ba jël nañ même bu ñuy perte wala du am bénéfice danañ jéem a approvisionner marché bi euh, xam naa suba wala gannaaw suba ci week-end mhm. tey jii ndax ngar daajoo googu nga xam ne benn compagnie rek a ko jël yor suukar si euh, di di ci di ci di ci liggéey maanaam monopole euh, ndax du loolu moo waral tey jii yi problème muy bëri. bu dañuy rek suukar ñàkk ñu jékki-jékki maanaam dépendance gi ñu am. Euh, maanaam problème bi mooy compagnie sucrière mu ngi commencé def quand ay tonnage yoo xam ne bu ci buy bàyyiwul danañ dem autosuffisance. mais xam nga mënoo nangu benn concurrence déloyale concurrence déloyale mooy benn commerçant boo xam ne benn magasin la yor hmm. di importe sucre di concurrencer koo xam ne mu ngi yore charge yoo xam ne de personnel ak charge euh, yu bari yoo xam ne social la RSE euh, nga nga daal di ko rey du politique bu baax parce que politique d'emploi dafa am solo hmm, hmm. donc li wa li ñu doon ñu am tey jii nga xam ne bu fekkoon ne beneen compagnie dafa ñëw ñu jox ko ay suuf déggoon naa Dangote bëggoon na fi ñëw bu mhm. fekkoon ne dañ ko joxoon ay suuf mu planté kaanam mhm. def production mais kon dañuy am auto suffisance ba nga xam ne dañuy sax exporter mhm. loolu mooy solution bi gën mais solution bi nekkul que ñu jox euh, ay commerçant euh, d'une manière permanente ñuy euh, importer bu ko defee ñoom ñuy remplir seen poche te du ñu créer emploi te CSS bu baax dafay tëj. ñoom rek lay njëriñ. évolution annuelle bu indice des prix à la consommation ñu gis ne euh, euh, ci njëg yooyu la produits locaux yi euh, ñoo gën a am yokkute ci deux virgule huit cent ci produits yi nga xam ne dañ koy importer yi nga xam ne xayma nañ ko ci deux virgule deux pour cent noo jàngatee li ni mel. waaw boo ko seetloo rek boo ko déggee da nga naan non mais c'est pas normal. Mm. mais xam nga li ñuy seet mooy production locale bi euh, nekkul en quantité suffisante ba nga xam ne bu boobaa day influer sur l'indice mm. parce que boo ko xoolee tey ci ceeb bi par exemple locale bi mais couvrir lu ñu sax ba tey ba trois mois de consommation mm-hmm. bu fekkoon nag production bi dañ ko buste ba nga xam ne da nga maam couvrir na totalité bi mhm. mais bu boobaa forcément day wàññeeku parce que généralement c'est des économies d'échelle mhm. euh, boo xam ne mom la ñu def bu boobaa mais ki nga xam ne li muy produire dafa tuuti ak facteur de production yi muy def dafa xaw a euh, cher mhm. euh, forcément du mën a nga xam ne ñoom dañuy produire en grosse quantité ba seen facteur de production yi ñu mën ko amortir rapidement. sànq ci say biir wax nga am benn jàngat boo def ne mbas mi dafa waroon yee nit ñi ba ku nekk di bay di nja jariñu ndax loolu foog nga ne ñu ngi ci yoon wi. Euh, waxoon nañ ne dañuy def consommé national sénégalais mais mbas mee tax ba defuñu ko am na ay programme yu ñu teg mais war nañ ko évaluer par exemple bu ma ne PRACAS. Hmm. li nga xam ne injecté nañ ko ci ceeb bi. ban résultat la jox buñ ko évaluer woon dañ mën a am dégg nga maam benn vision boo xam ne bu ñu war a jubanti ñu jubanti parce que pandemi bii nga xam ne moom la ñu vivre euh, jàngal nañu ne dañu war a production locale mm-hmm. consommer local mm-hmm. mais nag loolu bu fekkee ne da ko bëgg a def da ngay booster sa production def ci li nga war a def te surveiller ko il faudrait aussi que acteurs yi hmm. comme les producteurs ñu def par exemple su ma jëlee ceeb bi hmm. au moins deux produits deux deux productions la l'année maanaam ñu def ko parce que ñoom benn reen ren la ñu def rek am tuuti xaalis daal di noppale ko loolu nag taxul ñu atteindre autosuffisance d'accord dañoo teel a doyal daal dañoo teel a doyal dem takk jabar <laughs> monsieur Cissé Momath Cissé ñu lay jaajëfal bu baax a baax maa ngi lay fay. ngay vice président ASCOSEN association des consommateurs du Sénégal merci beaucoup. exact merci c'est moi.